man la Babacar Ndiaye président directeur général bu Touba Android. bo déggee Touba Android xamné ne lépp lu jëm ci téléphone yi fofu la fekk ba bépp marque nak marque bi gëna a bo boo fekk fa ay bagaasam lo bëgg ci tactile amna fa li gëna a amna c'est très rare ngay ñëw fekk fi euh, fekk fekkoo fi ngay ut lolu c'est très rare mais même su amé tam bu la nexé yow da des ci client bu la nexé da ngay def sa commande ñu jël sa marque photo jël sa référence. dans une semaine ñu libéré la sa sa sa écran wala sa tactile ak lu mu jafe-jafe même bu dee da nekkoo Touba te bëgg a defar sa téléphone mën nga jël WhatsApp bi boo ko enregistré photo sa téléphone boo ñu ko envoyé dinañ la wax tellement téléphone moo ko mën defar souvent da ngay yónnee sa xaal envoyé téléphone bi ci ci ci sa ci sa oral mu ñëw su paree ñoo koy defar yónnee mu fekkaat la nga toog ñu ngi koy defal ñu bëree bëri nañu ba ñi nga xam ne ñoo am usine yi di ko liggéey partout dans le monde ñun ñu liggéey ak ñoom kon déjà ñu euh, écran bi amul Sénégal wala écran bi amul il na fi loolu moom jeex na fi. waaw Touba Android moom ma nga nekk ca marché Ocass ca Touba. nekk ci réseau bi ci wetu centre Serigne Dame Atta. Touba Android di ñaanal xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. waaw foofu romb sos entreprise la quoi entreprise boo xam ne ay ndaw yu gëm seen bopp yoo xam ne yàlla noo boolee ñu bokk gëm-gëm bokk initiative bokk xam-xam bi. li muy jaay mooy biisu lépp lu jëm ci wàllum takkaay rek poobar da ci yëngu plaque original plaque Inde plaque Dubaï plaque Jakarta plaque Chine per cristal aqiqa diamond ak per zircon moo tax ñuy tukki fépp foo xam ne damay gis ni maanaam war naa faa mën a dem indil waa Sénégal lu baax euh, numéro téléphone bi 76 690 33 76 77 341 15 11 76 497 92 07 mooy numéro gérant place bi. poobar ji nag moom lu classique la quoi lu yàgg la loo xam ne maam doxoo ko ak wax. סוכרתי, תבנך מחנך. תבנך מחנך. סוכרתי, תבנך מחנך. חולה חולה, לגייק תקר כולך. חולה חולה, يعني كبير كالجنة يعني كبير كالجنة غنى غنى kër gu neex kër gu neex. wala dawal ñëwal ñëwal ci biir kër gu neex ñëwal ñëwal dawal ci biir kër gu neex. dawal dawal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal yaa ngi ci biir kër gu neex. dawal dawal ñëwal ñëwal ci biir kër gu neex ñëwal ñëwal dawal xoolal xoolal yaa ngi ci biir kër gu neex yaa ngi ci biir kër gu neex yow sumpu ah nari yëgal bëriwul de ah ragal yàlla de moo moo gën ragal ragal ragal ragal ragal ragal ragal yi dóor ñam mu ah toog leen si gër yi rek ngeen bañ bu ngeen toogoon si gër yi di dóor yaa ngi dégg du leen dal waaye waaye gis nga koñ bi léegi koñ baa ngi ne na selam marché yaa ne selam ndox yi ah karena ini ñi gëmuñu yàlla feebar bii mana ko war a mën yaa ngi dégg waaye gis nga lii man gis nga lii fi ma gis nii wala wallaahi lii waay lii fi ma gis man feebar bi ma gënal wuli wuli waate feebar bi sax moom moom moo gënal ndax liif yoo xam si watt watt yoo xam ne nii la naa la yëgal lu bëri wul nag gis nga xelu dugg sa biir kër ndànk moom moo gën fuuf ay xel dugg sa biir kër ndigal laa ngoog yéen waa koñ bi yéen yéen laay waxal yéen waa marché bi sensibilisation rek ndax ko remé ko remé virus bi waaw comme ni ko koy waxee corona virus bi jóge fi ñun ñu waa Sénégal ñu xeex ko ndigal laa ngoog salaamaaleykum yéen waa koñ bi yéen nga may dégg nag kenn ku ne xeex sa koñ ngir feebar bi jóge fi ñoo ko war a xeexal suñu bopp te moytu lii fi ah ah fataguma moom naka fatatuma moom am na ñoo xam ne moom fatagun yéen yéen ngeen yéen ñi xam na yéen a bokk man koñ sangooguma ñëpp xam na ne sama kër am mu ma njaam fat rek fat rek la fa nekk woon kenn xamul gëj a fat kenn xamut man at la gëj gëj fat Nak ñam Moussa di nak bari ki dem gis na mu mu mu sa mu tëb mir ba te jaar su bundu kër bundu kër bu ubbeeku na mu tëb mir ba xaw lol nak lan moko waral na diw di waaw waaw digal la ngo fañ len seen ko cope copernawis bi baaxu dina nak seen loxoy ba mu set digal la ngo ci document là. sama yoon nekk si document bi réunion am na si kër gi da ngay nekk iñaan bi soxal soxalu réunion am na si kër gi te yéen ñëpp di ngeen ngeen si réunion bi. tonton Matar lan la waaw réunion am na yéen ñëpp mais dama daal lu xew. mbir bi heure bu ngeen ko déggee xam ngeen ne ñoo xew na. am na si dëgg boo nekk si nekk sama yoon da ngaa bëggum néeg. ah ku buul ko rek da fële. day ñëw kenn lay ñëw. te doo demal taxaar fee ba ñëw. ay ba nekk ginnaaw bi. mais mais lii dem na lii dem na. kii moom. réunion moo am ñëw ñëw leen fi. ñëw leen. ñëw leen. waaw ah, kay réunion waat. di yàgg man sama réunion di yàgg. ok mooy daane wax bàq léegi bu ngeen gisee moo woote réunion da ngeen di soxor soxor te man maa leen gën a soxor fopp waaw ndax yow yow yow yow yow ñëw naa sa néeg di la di la leb ñaar téeméer nga bañ c'est parce que dama kaa amul am nga ko kay yow ñëw naa tamit sa néeg di la lem ñaata mën nga bañ. Ah. yow ñëw naa ñëw naa sa néeg di la ab 1500 nga bañ yow ñëw naa sa néeg di la ab 1500 léegi nag comme que ay iñaanante la ay iñaanante day day am su suñ diggante. képp koo xam ne si yaa ngi si yaa ngi kër gi nag ma fay tay lan tay waaw lan waaw lan. Ba Matar yow moom chaque jour ak problème bi ngay indi yow ñun le 5 lañ daan fay. le premier nga bëgg ñoo fayee ko loolu moo la ah da ngay da ngay bàyyi bala cinq ñu fay la. léegi lan moo tax ma ngeen bañ. waaw est-ce que est am nañ ko. am ngeen ko kay. yow waaw ndaxte nit waaw réglementé moom mooy ma tegu ci yoon kii tegu ci yoon nga tegu ci yoon kër gi tegu ci yoon. affaire yi affaire yi compétition yooyu. gën a ma nga xam maa la gën a jàng fop li ngay lam laamee wiir wiir yi man man man xam naa ko li ma lay yëgal mooy tey la première te le cinq gën di fay le cinq yooyu damaa baaxoon ndong damaa baaxoon ndong. Ah. naan naan naan naan fay fay leen le cinq. léegi le premier da ngeen ma koy fay. waaw daan lay wax yow. le cinq daan la génnee sa xaalis mais yow ab boo weer comme que weer ma ngi ñëw. weer ma ngi ñëw weer ma fan moo si des. waaw maam soxna tax lu tax lu ngeen ma ko lebal. buñ ko amul nag. waaw bu am ngeen ko. ay waay ah, la cinq ba la cinq donc nu lay fay nag la cinq léegi daal. wax ji ak lu koy guddal ak lu koy gàttal. waaw ah. waaw ah kenn ku ñu dugg si néeg. Mm-hmm. xool maanaam lan fa am si yéere. waaw lañ fa am si li nga xam si war nga mën a fay fay fay weer wi nga xaaj ko jox ma ko nga génn ngeen génn sama kër waaw waaw man xam naa li ma la ñun su fekkee ni dañoo luyaas ci kër gi xam nga luyaas fii ba noppi suñu demee ba amuñu lu ñu fayee lu mu dee dee lu mu néew néew da nga ñoo war a may un mois wala dara wala tuuti waaw wala ay 32 jours yooyu ñu ñu wuti fu ñu dëkk yooyu mais duñu jekki-jekki rek nga génnañu Matar yow bala nga ñuy génne ah normalement da ñoo war a avertiser mm-hmm. boo ñu avertiser ba noppi pendant un mois wala deux mois ñu wër ba am fu nekk mm-hmm. waaye yoon mayu la nga jékki-jékki génn ñu ñu génn de. lu tax ma leb leen ngeen bañ. waay waay am nañ ko am nañ ko am ngeen da ngeen da ngeen a bon da ngeen a bon. ndax bu la lebalee doo fay cinq la cinq man xam nga xam nga yow lu sa problème man du ma wax ak yow. yow sa yow yow borom néegub ginnaaw bi dama wax yow yow sa néeg sa néeg yaa gën a ginnaaw am néeg te yaa fi mujj fay yaa gën a néew la lay fay yaa ngi naa la fay ba ma sa kër ah boobu ko boobu waaw boo fay ma tëmbal la ndax fay ah, ma wax de ah, wax ji li koy guddal ah. eh sangooguma yow laay waxal hmm. xamu lan mooy sa problème yow laa bëgg xam léegi daal li sama problème mooy waaw ci ci kër gi waaw waaw hmm. li ma fi metti mooy hmm. lépp gi ma leen lépp ngeen bañ waaw léegi dama bokk ak yéen kër gi. Hmm. loolu moo ma gën a métti si moom moo ma gën a métti bokk si lu ma gën a gën a métti ndax. dëkk ba ndax ndax dëkk ba. Hmm. daa daa day waar. Hmm. yaa ngi dégg beneen bi tamit moom du ma ko taay di ko wax si réunion bu ma ko waxee rek am na ñoo xam si war nañu kaa xam fat bi. fat ah. fat bi. yow Ba Matar man damaa bëgg nga bàyyi fat mi. man damay am samay gan. d'accord fan moom da nga koy bàyyi ñu wax ci ay couloirs dégg nga del wax nii jël ay couloirs ak yooyu jël. góor nag da jël waaw c'est man samay cours soir jigéen laa koy jàngal quoi man man ah, xam-xamu jigéen yor quoi xam-xamu jigéen laa yor. Ah, waaw xam-xamu jigéen laa waaw. waaw nag ni nga comme ni nga <laughs> yore xam-xamu jigéen. Ah, <laughs> li ma la mën a wax mooy yow yow moom bi billahi wallahi li ma la a waatal li ma la mën a waatal yow ah li ma la mën a waatal ak ak penk bi ma jublu bi li ma leen di laaj boo ma ko joxut yow jàppal na kenn dugg si kër gi nga nga nga koy fat yow loolu bu si ndool na am euh, je me vais réclamer au police quoi. ñu ñëw ñëw jësti la. police la police la demal woo waa tribunal yow da a yóbbu am mbaam daral yow. yow am mbaam mbaam mbaam mu nangu da ngaa mën a yóbbu daral ngay ngay cëkk cëkk dañ ma fi nga dëkk daa taa yàqkatu der bi ñàkk fay bëgg a dee. yow naa leen fii ba ngoon. comme si fii ba ngoon. yow ngoon yow ngoon léegi mu jot. waaw guddi fii ba guddi. fii ba guddi yéen yéen fi ngeen dem guddi bu ngeen dee ñëw guddi waaw ah, xam naa ne bu ngeen dem guddi ku ñëw te joxoo ma ñaar téeméer yaa ngi dégg sëm ne dama koy tëj waaw léegi ñaar téeméer yow yow moom li barke du leer war na dul laaj yow yow fekkee nan nga fee fat fat fii jigéen yow ah te joxoo ma ñaar téeméer yow yàlla naa sama nday yow ah. Ah, waaw père waaw bàyyi jigéen bàyyi jigéen fat man man fatuma jigéen damay jàngal ay cours du soir waaw cours du soir yooyu nag cours du soir léegi boo dee jàngal cours du soir jàngal cours du soir sa xaj eh, waaw may fay sama xaalis sama yónneeku ci non léegi xoolal lu ci père xoolal kër gi nag daa métti ah wax dëgg yàlla kër gi daa métti ah kër gi neex kër gu neex waaye léegi nee nañ négocier kër gi léegi ni kër gu naqari la kër gu naqari la dama teb saw kay dama teb saw kay man man dama teb saw kay yow ñàkk kersa bi bëgg a dee d'accord léegi léegi xam nga nu ñuy def man dinaa régler sa problème ah xaalis sax na amut parce que dama waroon a am ay. gan yi waaw mais léegi ah léegi lii fi bariwul ah après da nga koy jël euh, lebalu ma la ko nag da nga koy dugal ci weer bi. waaw boo ko defee tey après léegi léegi léegi lii man lii boobu lii boobu ko joxoon naa nekk fi teppee. yow xaalis bi nga ma jox nii. xam nga xaalis bi moom laa soxla woon. xam nga yéen Sénégal maanaam lii moo tax moo moo moo tax da nga bu ma lay ab sutura la woon. waaw ah léegi nag loo loo bàyyi loo loo bàyyi ma ba nga ñëw fii nga nga may nga may jox xaaj avance bi. am yow am yow bala ngaa mën a jël sa xaalis ak ay jigéen dañoo teew yooyu yëpp nag di ruba xam nga lu ma bëgg mooy ah. ah. xam lu bëgg mooy ah, nga jël loolu ñu dugal ko ci. salaire bi ci salaire bi d' accord léegi yow après nag. ñu kër gi nag tayoo tey moom bëgguma fi coow. dama am ñoo war a seet si moo tax tey bëgguma wax ci kër gi. baax na baax na yéen mën ngeen ngeen dem. yéen mën ngeen dem mën ngeen dem mën ngeen a bàyyi ba la seeg. boo gisee may tarara ni maanaam sama sama jabar moo moo moo toll diggante mo moo toll diggante ba daan ma dom ji nak mo mo mo mo mo mo mo mo tak bañ bañ du génn. waaw bo yëkkati tang ba kay gis bop dom ji. bop dom ji ma la ko wax. waaw c'est incroyable quoi. ah c'est incroyable. c'est incroyable kay <laughs> c'est incroyable. kay boy waaw yow ka kàccoor nga yow. ay ah, ma ah. tey nag bul génn de tay damay tay damay ki kër gi. quoi waaw ya boy pardon dama laaj la. lan moo tax manam maanaam par exemple yow ah, manam nga bëgg samay wax samay wax daal neex la. Ah. non xam nga yow man ak yow ñoo far quoi comprends nga danga may daj di ma reetaan loo moo tax xam nga. a ah, yow yow nag booy nag da ngaa kàccu rek la nag ci boole mbalak yoo xam si maanaam ku ko wóoroo a sa sa sa sa moroom mbaay. dafa waaw da xam nga damaa wàcc sama bopp rek maa wàcc sama bopp. waaye léeg-léeg di ma jox kiiru baay baax na baax na. waaye ma waaw. ah yéen bi baa ngi. kii kay léegi. Ah. fu ngeen ko gisee rek jàpp leen ne maanaam ah, misaal bi ñëw na kii. Ah. <laughs> waaw bu ngeen ko gisee de. waaw bu ngeen ko gisee rek moom daanaka. ah waaw woote bi. waaw kay fàtte woon ko mën ngeen di tëddaat <laughs> salim suma gaay man la bàyyi jiri mbay borom sangoguma tey nag dama andil big big scoop muy sangoguma tv la première scène officielle youtube bu bàyyi jiri mbay kon kay à partir de maintenant muy téléfilm muy théâtre muy série tout kii qui est actualité de Baye Djily mën nañ ko am ci sa Sangomar TV kon suma gars yi nanu gaaw abonné bon ñu bës cloche bi tout ce qui est actualité de Baye Djily mën nañ ko am ci Sangomar TV